xibaaru yi dañuy door rek ñu indil leen loo xam ne dañ ko war a partager léegi bañ a toog sax ndax jamono jii may wax ak yéen ñëpp seen xel mi ngi ci procès bi si suba ba léegi moo xam ñi nekk ci biir réew Sénégal moo xam ci région yi moo xam bitim réew ñëpp rek ñu ngi bàyyi xel procès bi donte xam ne ni procès caaxaan la donte xam ne ni amuñu dara donte tembo yi ñëpp ñëw nañu décharger président Ousmane Sonko waaye xool leen ba ñu tàmbali suba ba tey dafa mel ne am na lu ñuy waajal jamono bi ñu ñëpp di bàyyi xel tribunal.

manam tëxit ndax sénégalais dañu dañoo bëgg nañu projet bi mais nak wa Dakar surtout wa Dakar est-ce que xam nañ ba tax tay projet bi lan la parce que nak gis nañ wa zigen la ñu wara def lépp def nañ ko gàcce ngalaam mais bu fekkone wa zigen li liñ def région yëpp dañ ko def ba tay kon projet bi sax du am ndax projet bi sax dañ ko bàyyi wara bàyyi muy wëyel muy mbirum tiaxan kilifa gu mag ci réew mi nga xam tane ku ne xam ne Ousmane sunko lu muy pesé ci Sénégal ku ne xam ne Ousmane Sonko mag góor jigéen mag ndaw amul kenn ku ko bañ ñëpp ko bëgg donte sax nit am na ñu lay bëgg am ñu lay bañ mais Ousmane Sonko unanime la dafa am loo xam te ne kenn musu ko am ci langue politique Sénégal ba tax na gatsa gatsa gi warul yam ci ay kàddu rek jamono ji may wax ak yéen jamono ji nga xam ne ñëpp a ngi bàyyi xel procès bi.

procès pornographique di wax nii laak naka laak di fen di tegale di wax loo xam te naka sudul noonu ba tax na Sénégalais yi nañu aar projet bi nañu aar Sénégal dictature bi nga xam te ne euh, kii di président Macky Sall mi ngi koy bëgg teg suñu kaw trop c'est trop jàpp journaliste jàpp ku ne amul kenn koo xam ne yaa ngi sañati taxaw di wax dëgg booy wax dëgg sax boo ko assumé te muy dëgg ci yow ñu fekk la fa nga fa nga nekk yóbbu la nu ko seen nga xamante ni ñëpp rek dañ ñoo terroriser ci lépp te ñëpp ne pat amul kenn koo xamante yaa ngi jóg rek di xeexal askan bi kon nag daf ñun ñi nga xam ne amuñu kenn ku ñu xeexal ñoo war a jógal suñu bopp xeexal suñu bopp ba am suñu liberté bopp.